si nga wax rek ci Thione Seck alhamdulilahi rabbi alamin ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ñu ngi gërëm suñ sëriñ Maolana Cheikh te am nañ rafet njort ci moom bëggoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nag yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngeen baal ma àq nag wax dëgg yàlla jërëjëf waaw baax na jërëjëf bëgg yonent bi rek sallallahu alayhi